am na luñ koy sotti dinaa la saafara yi bu sore sori la jugee na yaram day daw moom la njaago tey nekk ci yéen a daan ànd ba ko rabi taxawee ba tey war a dem li nga xamante ni mooy ah, yaram day daw sa xel tey war na jàmmale sa xel def ci ñi nga xamante ni dañoo def waa jàmm sa xel dem ci ñi nga xamante ni ñu jël seen alal dara jox waaw sa xel dem ci ñi nga xamante ni ñooy dem ci autorité yi ñu lay jàppale ñi nga xamante ne dañoo jël ay bolok ñi nga xamante ne ñu ngi ciy seen i kuréel di ñaan di sànni ñi nga xam ne ñu nag day difficile. day difficile moment bi ma si ma neex xalaat bu ma taalee tey fekk naa naan. voilà man ko tey gaa demoon mais fii nga xamante ne nii sëriñ. lii des fois nga gis gis gis nit aalu duufe. nga yaakaar ne lu mu tax la fekk nekk moo tax. des fois nga xool ba doo xam loo ko war a fay. waaye ñaari xale yi ci ma ne la nit ki boo dee mbër nekk sa koñ loo mën a def ci lu rafet def ko waaye dama kon tur mbër ñoo xamante ne dañuy yor sa oto ngeen di seede ba mu ñuul dugg sa biir ba wala ko ba ci kaw wala nga leen di tàllal loxo loolu waajal pour que suñu suñu partenaire bi est-ce que sa waa waajal sama instant bi nga xam ne est-ce que sa waa ko kenn ko ndeysaan ndeysaan mu ngay ñëw moom Laurent Ndiago mu ngay ñëw mu ngi jiital tànk ndey jor ñu waat li nga xamante ni moom mooy dégaane bu njëkk am na lu muy laaj. Assane Fall borom Gola Fall. ndeysaan ndeysaan waaw xam nga kooku daan naan waaye ma faa wax. borom bu ma da waxuma ci borom bu ma ndeysaan. teg na ko ba jox ko mer yaayam la wala maamam. mer bi na ngeen leen dem mel ni na gars na gars yi nañ bal baax. Laurent mu ngay dem mu ngay dox di mu ngay dem waaye na waay. ngay dem dugg ci oto bi dox nañ ko bëri. am nañ ca biir. ñu ngi waaw oh, pop pop pop ma ngi koy xool waaw Laurent daa jàng arab yow ma ngay lire de. mais tey suba bi gaa gaa dañ ko wàccal tam. moom Laurent te Laurent mi bu jàngee yow. loolu dafa doy waar yow dafa taw. jëkk dina la dafa jëkk sa bonte na gaay ñaan nag mooy dem seen ngay tàgg toog waa jàmm gën dégg nga suñu borom mu gën a bëgg mooy ñaan ci oto ba ñu doon toog ñaan leen ma ma may leen ñu ne ci oto ba moom Laurent Ndiago Laurent dugg na ba Aliou. koy muy ndam. nga jot ko. waaye ndam waay. saa a génn koñ bi. na tengaan ba koy sotti li nga xamante ni mooy mooy saafara ba. waaye na lekk bi di ko sotti moom Laurent Ndiago. Laurent Wong sa bundu kër ga ñoo ngi koy sotti saafara ba tët tët tët lamb lamba neex Laurent Wong kër ga ñoo koy sotti li nga xamante ne mooy débat déeb ya waaye ñun imagine soxla sax mënuñu ko am. Oi. dëkk. waay waay waay waay. non non non. barke yéen a ngi tudd. Ba Ndiago nga noonu. ma ngay génn waaye borom téléphone yi ñu ngi may ñu ngi nii Diamaguène le, le, le départ de Laura Diago. Qu'est-ce qu'il y a de Il y a une foule qui est là. Ils sont devant la maison. Ça va être ah donc bu fekkee léegi am lii boo yi fi nekk léegi dama déggal ñoo déggal mag yi ba laaj. Oh, mbiru jàmm gën yaru nañ. baax nañ dañu àttama bu dee soo mbiru jàmm gën dañ ko xam. mbiru combat da ngay woo sa grand frère am naa combat ba xam ne sa bande yi moo tax mbiru jàmm gën pour gis rek rek ñu digal moo tax ñu am jàmm ko. man kese maa ngi koy defee ma wax déglu leen kii. waaw kii daal gis nga la gën a nekk instant nag nga duur. bis bi la doon gaaw nga instant duur gis nga instant. image bi yow la. yàq suñu image bi maa ngi noonu. surtout kii maa ngi déglu daal. maa ngi noonu. bu yàq suñu émission waaye. waaw kay. Zero. ani lii fi mu nekk moom. waaw lii sax jàmm gën di waajal ak waa jàmm gën bu baax. benn proposition bi waa nii. waaw ñu ngi may mais léegi rek incha allah. waaw. nañ la yàlla baax na gaan. musuma naaru naar moo may defee siñ mel ni ku wax ak muuma Eumeu Sène na Eumeu Sène lan Eumeu Sène wala Boy Niang ba ci ngay wax gaay duñu doos ay Eumeu Sène billahi wallahi toog sa bundu kër di wax lu la doxul liste mo Eumeu Sène wala Boy Niang ñaari combat la gaay man ngay waxal wa xaar mo xew pare ma ngay waxal mo doxal yi ne am na dox boy doxal mo na pare xaar mo wax liste pare ñëw pourquoi Eumeu Sène pourquoi Eumeu Sène pourquoi Eumeu Sène waaw parce que ay mbër lañ quoi dañ ay jour la te fa laa toll quoi. affaire yi affaire yi xam nga lan la. affaire yi affaire yi xam ngir sa dëkkuwaay am doole ngir sa parce que fekkee da ngeen xalaat da ngeen yéen xam na ngeen dof <laughs> jaa or baa ngi nii booy ngir yàlla loolu moom mooy ñaari combat laaj ma bana ban rogoros damay lekk data yaayam góor jigéen la